الحمد لله الذي افتتح هذا الوجود بنور المحمدية الساري في كل قضية وجعل ببروج ذاته اختتامه وانتهاء وقص أهل الفاخرة ونسله الطاهرة بأسرار الإلهية fa kaanuu xisnan xasinan li ahli l ardi wa diini lxuma wasalaatu wasalaamu ala xayri lbariya wa ala alihi wa asxaabihi wa atbaacihi wa man wala wa radia allahu an cheikhina alxadimi cheikhu shuuqi xutba rabani wa imaamu alaarifin ala wa huwa cheikhana ahmadu bamba ridwanullahi taala alayh wa ala xudwatina bilmuridina wa xaaidihim maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babal Mouridine bokk yeeg xarit yi ñu baaxoo déglu seen rajo xasida online tubaa Monde bi lëkkaloog seen télévision Touba Monde bi ak xasida online ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ba baax a baax euh, di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaan ci àddina si yëpp ñu tëdd ci lopitaan yi sunu borom yëkkati leen ban dellu ci seeni sago ñu ne ci tees ñu teggal leen ko bi barakati sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal cheikh sidul muxtaar xalifatul aam li tariqatil muridiya sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér nekk ñoonu lan koy ñaanale seen cheikh jëmb faal xalifa maam cheikh ibra faal yàlla sunu borom yàggal ko fi tamu ànd ñi ngi nuyu ñëpp di ñaanal jullit ñëpp fu waaye mën a nekk ci àdduna yàlla na sunu borom defal nu jàmm ci weeru tedd yi nga xam ne ci lañuy dugg ñu ngi baalu àq ñëpp tey baal ñëpp ak yàlla na sunu borom boole jéggal yàlla sunu borom nangul na sunu jaamu yàlla defal nu ko koor goo xam ni koor gu nangu la bépp jaamu yàlla bu mas a nangu yàlla na ko sunu borom boole ci at nii te yàlla sunu boroom faj ci sunuy aajo dind ci ñi sunu njàqare ak ay jafe-jafe te tàppi xol yi ba lépp doon benn ñëpp ànd ànd gu rafet ci xol bu sell bi barakati sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran seen mbokkum taalibe Ibrahima Fall mbay moo dellusiwaat ak yéen ci seen waxtaanu koor ci xarala gi e, lëkkalook Thiam e, Mbaye Fall ak sëñ alin Mboup kon duñ def lu ànd ak yéen rek ci nin ko fas yéene dikk ci soññe boo xam ni dafa jëm ci e, dellu ci yàlla subhanahu wa taala muy kuy dox te xamoo foo jëm da ngay delluwaat fa nga jóge woon bokk yi mu mel ni gis na ni jafe-jafe àdduna ak gàllankoor yi ak xat-xat yi nga xam ni am na ci xew-xew yi ak yëngu-yëngu yi ñépp kenn ku nekk di yëkkati kenn ku nekk di wax kenn ku nekk mi fëgg dëndam kenn ku nekk di laaj wàllam ku nekk naan ma mu mel ni bu nu dellusee sunu xel tuuti te xam ni am na lu islaam dénk muy ak booloo goo xam ni dafa war a nekk benn ci jullit ñi ndax loolu moom mooy sunu njiglaay ngir yonent bi sallallahu alayhi loolu la ko sunu borom digle mu digleel ko saxaaba yi ñoom ñu doon wéy ci yooyee tànk bu mbir mi agsi fii tey sunu yaakaar tey sëriñ tubaa nag jëfam ak waxam yépp dafa tënku woon ci loolu fas yéene nit ñi booloo ci weer wi ñu tedd wax nañ ni su masaan dënmal moom sëriñ bi boppam daanaka gatandu gatandu goo xam ni da daan ànd ak mbégte wax na ni lu ko nit masaa bëgg a wax wala aaju boo xam ni mas ngaa bëgg mu faj ko ci lu gaaw ci tàng-tàng bi danga daan dekk weer wu tedd wi nga xam ni moom lañ dugg bokki xam ngeen ni weeru barkeel la weeru ngëneel weer wu ànd ak ay xéewal yoo xam ni xam na tàmbali waaye amul fu mu yem weer la woo xam ni ci la nit war a fóote woo boppam weer la woo xam ni ci la nit wala examen boppam xool boppam ba xam ndax moom mi ngi dox walla doxul loolu ci ni nga koy xamee ci ci kam kàttan ci li ngay jaamu suñu boroom subhaanahu wa taala di nga ko ci mën a xamee alquran nag du dikk di wax ni fattaqullaha ya ayyuhan naas wabtaxu ilayhi alwasila wa baajiru bi amali salihat qabla an tashtaxilu eh, yéen jullit ñi na ngeen sax ci gëm sunu borom subhanahu wa taala waaye ragal yàlla ragal goo xam ni ragal yàlla nag bari na ay façon waaye yi ci ëpp solo ñaari ragal yàlla mooy yi alquran tudd te loolu am nañu ci ñu ko mën am nañu fa àggul ittaqullaha xaqa tuqaatihi ak ittaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kem kàttan fu ngeen mën yem ci seen kàttan bokk mel ni gis nañ ay nit yàlla yu baax yoo xam ni góorgóorlu woon nañ ci diine doon ñoo xam ni islaam jaraloon leen seen bakkan ba seen bakkante jii dafa rot ci toolu islaam ñu xare-xare yoo xam ni yëkkate islaam ak baatu laa ilaha illallah ak alquran moo taxoon ak saxal kàddu suñu borom subhanahu wa ba faatu fekk leen ca ñu nekk shahid ñoo xam ni ña ngay dekkee aljanna ñooñu seen kam kàttan lañ def waaye ragal yàlla xaqatuqaati yi dëggi dëggi ragal yàlla mooy fa mu sasee rëkk ba sas noonu ko Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul wax wa xaysuma taqafka ilaahakal aqat yaqafka min xawfihi kullakal ahad Sëriñ Tuubaa nee na boo ragalee dëggi-dëggi ragal yàlla lu dul yàlla dalay ragal loolee nag la ko suñu borom subhaanahu wa taala defal kon ñaari ragal yàlla yooyu moo am mu ni nag ginnaaw bu ngeen ragalee yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yaa ayuha naas nit ñi wa abtaxu ilayhi l wasila wut leen ci ku ngeen jokk muy wasila boo xam ni bu mat wasila muy jokku leen ci ab sëriñ am leen ku ngeen jox seen bopp am ku leen koo xam si ulul amri lay doon ci yéen muy ki nga xam ni moom mooy jël seen responsabilité seeni mbir ba bu ngeen di laaj seen diine ci moom ngeen di dem ba bu ngeen di dellu ci yàlla moom mooy seen escalier bi ngeen di jaar pour yéeg waaye na doon ku mat koo xam ni da ngeen ko doyloo gis ci moom jeex ci suñu boroom gis ci moom jaamu yàlla gu wér gis ci moom ak dëggal ci suñu boroom subhaanahu wa taala ak jaarale leen ci nit ñi ci fi nga xam ne si moom la suñu borom subhaanahu wa taala bëgg wa baadiru bi amali saalihaat nee na na ngeen njëkkante ci jëf yiw bokk yi mel ni li ëpp njëkkante ci àdduna ak li nga xam ne si moo tax nit war a di wujje mooy def lu baax yàlla na suñu borom xiir nu ci njëkkante leen ci def lu baax mooy njëkkante leen julli njëkkante leen woor njëkkante leen saraxe njëkkante leen génn asaka njëkkante leen di jaamu yàlla ci jullit ñi di waxlante bu baax tey jàppalante kenn ku ci nekk loo mën a dimbali sa morom ci lu baax nga ëlbati ko di ko def te yàlla rek tax te mu bañ a am yenn naafeq wala yenn ngistali àdduna yoo xam ne si da cee laxasu jëf yu baax yooyu nag nga xam ne ab jullit da koy jëf sunu borom subhanahu wa taala nee na xabla an tartalu ngeen dem ba nga xam ne si xat-xat day dikk ci yéen dootu leen ko mën xam nga alquran dafa wax ni kalla isa baraqati taraqiya wa wa zannahu annahu wal tafatu saaqa bi saaqi wala yowma idin almasaaqu wala saddaqa wala salla walakin kadab wa tawalla nee na bu ñu demee ba nga xam ne si nit mi ngi ci lal tawat bi dem ba jël ay cëram mënatul yëkkati benn loxo wala lu mu yëkkati mu daanu làmmiñ bi mënatul wax wax ju àgg nee na su boobaa kenn ku nekk li ngay xalaat naan dañ xool mocckat ba nee na su boobaa yow foofu mënatoo julli mënatoo woor ana yooyu rëcc na la ndax ba nga amee doole te dama koo def defoo ko nee na foofu daal suñu borom rek moo fa des kon nanu góorlu fexe balaa loolee ñëw nga xam ni ndax fu man am mën a dina taxaw ku mas a am doole di nga mas a dem ba ñàkk kàttan kon foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxe yàlla dinu digal kon fi nga tollee ci jaamu yàlla góor góorlul ci jëf aw yiw ngir bu ëllëgee boo demee ba mënatoo ko doo ko def mu ne wa sillu baynakum wa bayna rabbikum bi kasrati salaati wa sadaqa wal ihsaani na ngeen di jokkale ko ci seen biir ak seen diggante ak seen boroom ci saxal ci ay julli muy jaamu yàlla wa sadaxati ak sarax wal ihsaani ak rafetal ci seen diggante xam ngeen ni julli bokk na ci euh, ponk yu mag yi nga xam ni bokk na ci islaam am taxawaay bu màgg boo xam ni dafa yaatu te te te rëy mu teg ca nag as sadaqatu muy sarax sarax wax na ni bu ëllëgee dina keral nit ci bu kër jafee ca kam la nga saraxe ci àdduna moom la sunu borom subhaanahu wa di jël di la ko defal ak keru sarax bu ëllëgee mu lay tiim yowmal qiyaam bi nga xam ni sunu borom day jël li nu mas a def ci àdduna taxawal ko ci muy ay bâtiment dëbbal ko boppam ba mu mokk ba mu des Madinatul Munawwara ak Kaabatul Musharrafa ak barabu Sëriñ Tuubaa bii ci jumaa bi lu dul loolu suñu borom dana ko dëbb def ko pëndëx jëri ko ci kaw suuf lalli suuf si daadi di daaneel lu fi nekkoon ci ay bâtiment ak i montagne ba mu jeex tàkk joxoñ géej gi mu tàkk ba jeex tàkk mu lalli suuf si lal beneen suuf mu beneen dett mbeer muy dett mbeer bu yaatu wax nañ ni foofu nit ñi bu buñ fa taxawee danañ wër fukki sàppe ak ñett nit ñi jinne yi moo leen di wër fukki sàppe ak ñett malaaka yi wër nu fukki sàppe ak ñett suñu borom daaje jant bi mu tiim nit ñi kenn du sol dàll kenn du sol yére kenn ku nekk dootal sa moroom nee na bu boobaa yawma tad'u kulla zaati hamlin hamlaha wa tara naas zukara wa ma hum bi zukara walakin azaballah shadid nee na da nga gis koo xam ni day nekk xale bu jigéen tiit ba ëmb tiit ba wasin te du ko yëg bàyyi fa doom ja waaye da nga ku tiit ba bejjaaw te du ko yëg ñi nga gis ni ñu nit ñu mel na ñu man di fekk boobu mbugalum yàlla moo tar kon foofee buñ koy bàyyi xel góor góorgóorlu ci def lu baax ñu ne nag kem loo saraxe ci àdduna bu ëllëgee dana la keral ci bu ker jafee mu mel ni it bu fekkee ni gis nañ ni sarax ak ay wiw yiw wi nga xam ni moo cay topp muy al ihsaanu muy rafetal rafetal ci sa digganteeg jullit ñi rafetal sa digganteeg asay bokk di jokk mbokk gi jokk gu rafet gis ngeen ni ci jamono yi ñu toll euh, jafe-jafe àdduna ak mujjug jamono gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci lañ toll ba nga xam ni gis nañ ni jamono léegi fi ñu toll mbokk kenn doxatu ko gis nañ ni yàqu mbokk am na gis nañ ni ëppalante ci wàllu àdduna moo tax daanaka mbokk yàqu na gis nañ ni wàllu tukki bi mu amee dem ak dikk ñi nga xam ni ña ca réew ma ñëwunu wala ñi nga xam ni tukkiwunu bu fekkee ni nit dafa dikk tey jii da nga am complexe pour jàkkaarloo ak moom wala nga sol sa daal seeti ko dañ naan da ngay wuti ci moom dara tey loolu bu fekkee ni yow ka nga xam ne yow yaa tukki amoo xel tàggantiwoo ko kon seen diggante dana mën a yàqu yooyu bokk ci jafe-jafe yi ñu gis ni it am na ay jafe-jafe yu ci nekk ndax xeeti noonu da ciy daal di judd ndax li olof di wax naan ku soppeeku sa àdduna wala nga yokk am ay noon yu bees ñu gis ni kon ak noonu ak ay xeeri xiiroo ak ŋaayoo yooyu àdduna rek la tax gis ngeen ni kenn du yóbbul dara loo dajale ci àdduna ni ko sëñ tubaa waxee ni rubba xabrun yuzaaru wa saahibuhu fi naari sëriñ tubaa xaadim rasul nee na bari waana xabru booy siyaare te boromam ñu ngi ko jëng ca sawara di ko duma nee na bari na koo xam ni am na ay taax ci àdduna amul mbaar ci àjjana kon nanu góorgóorlu ci jaamu yàlla ak def lu baax sax ci ndigali suñu borom subhaanahu wa taala ngir bu ëllëgee la ñuy wut ci lu baax subhaanahu wa taala mën ko defal an al islaama lam yakun salaatun faqat na ngeen xam ni islaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na du julli rek julli bokk na ci ponk islaam yi am ci doole lool am ci benn wàccuwaay bu mag a mag waaye na ngeen xam ni bokkul du julli rek mooy islaam wala sifaun bu faqat du xol bu rafet dong ci jullit moom la war a am mbiram yépp mat bokk na ci xol bu rafet ndax xol bu rafet dafa doon koo xam ne si xol boobu du ëmbal kenn ak kiñaan xol bu rafet day xol boo xamee ne si du am ak rëy xol bu rafet mooy nit koo xam ne si yéene na ñëpp jàmm te sëriñ Fàllu Mbàkke da daan wax ne mbay ndaw mu ne ko Mbàkke mu ne ko man jàmm rek la yam mu ne ko lu tax Mbàkke mu ne ko dama yéene ñëpp jàmm ku yéene ñëpp jàmm am jàmm kon yàlla suñu borom defal xol bu rafet ndax man xafara li aqihi jubban waqaa fihi mukabban képp koo xam ne gas nga am pax yéene ci nit ni dama bëgg mu daanu ca ma suul ko yow boo mutiwul yaa cay daanu moom mu suul la kon yéene néeg la borom ma cay fanaan kon yàlla suñu defal xol bu rafet ñu yéenante jàmm mu ne kon bul xamal ni yonente bi sallallahu alayhi wa nee na du rafetal dong wala xol bu sell moom mooy ak ngëm yàlla subhaanahu wa taala bal huwa salaatun nee na nag na nga xam ni julli ca la bokk wa sifaun ak xol bu sel bu rafet boo xam ni day yéene ñëpp jàmm wa xubbun ak bëgg bëgg gu wér goo xam ni ginnaaw ndax dañ ni la sooy bëgg bëggal te yàlla tax waaye sooy bañ bañal ngir jëmmi suñu borom bul bañ ngir àdduna bul bañ ngir daraja bul bañ ngir intérêt bañal ngir yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit day bu fekkee ni gis na loo xam ni mën na koo dind ci loxoom ab ñaaw ñaaw bu fekkee ni bu ko dindee ci loxoom mu dañ na ko dindi ci loxoom bu fekkee ni loxoom jotuwu ca pour mu mën koo dindi mu leer ko ni bu fekkee wax na ko ci làmmiñam jéebaane ko ñeneen jot ci def ca lañ ca war a def loolee faju nee na na ko def nee na su mënul yooyee yëpp nag na koy naqarlu ci xolam te xam ni moom ab julit la nee na loolu foofu la gëm yàlla di nekk kon ndekete ab julit daal foo mën a nekk rek la la war ci wàllu diine lañ nga ca mën ci lu baax nga def ko la nga xam ni sa doole mëtewu ko nga koy naqarlu ci sa xol ba noppi di ko dund dund gu wér mu ni wa wafaa un ak kóllëre gis na ni kóllëre dagg na ci àdduna léegi te bokk na ci li boroom xam-xam bu mag bu waxoon yàlla sunu borom yokk leeram sëriñ sàmbay nee na euh, bokk na ci li ëpp solo ci àdduna nit war koo fonk muy euh, ñi nga xam ne dafa jamonoonte woon ay waajuram muy fonk kóllëre yi nga xam ne sa baay da koo amoon nag say wëllëree bàyyi nga koy sàmm di ko dox gis nañ ni ak mbokk day daggu gis nañ ni kóllëre dafay wàññeeku gis nañ ni xamante yi nga xam ne moo doon am ak jokkaloo yi daanaka dafa wàññeeku ndax mag ñi bu njëkk dañ daan bokk benn barab dëkk dëkk goo xam ne si bunt néegi yi jàkkaarloo kilifa gi nga xam ne moom moo yilif ñëpp donte ñoom ñëpp ñooy bokk benn barab ay juróom benn fukki buntu kër dafay nekk kër goo dugg dana am fukki nit yoo xam ne si ñoom ñëpp ay borom kër lan waaye kenn moo leen di yilif mooy kilifa gu mag gi bu nu xëyee suba dañuy daje ci néeg bu mag ñoom ñëpp ñu àndandoo toog mu xellil boppam ndekki di kenn ku nekk mu joxal la boppam ci loxoom jàkkaarloo yow xool sa xar kanam bu fekkee dafa benni mu xam ne benn na bu fekkee dafa lëndëm mu laaj la loo fanaane ak lu la dal nga wax ko sa bopp ñu daal di jublu ca loola daal di koy taxaw waaye léegi gis nañ ni tasaaroo yi dafa am boo amee soxna la ngay jëkk def moom mooy séparé wu génn sa kër ga berul sa bopp ànd ak sa soxna dem xam ngeen ni gumba du jiite yoon lu waññam ñettaar léegi mu daane leen ci kàmm ak loolu bokk na ci jafe-jafe jamono yi nga xam ni loolu xam naa ne beneen tam la boo xam ne dañ ci dugg muy yàqu-yàqu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba tey ni euh, loolu julli ak woor ak def lu baax ak sifaun ak wafaun wal qiyaam jug di julli guddi di jaamu yàlla xam ngeen ni yàlla bëgg na ko yëg trop yonente bi salaahu salaam nag ni bu guddi gi màggatee ñëpp di nelaw foofee nga xamee ne si euh, yàlla bëgg na ko fa yëg nga jug fa di fa jaamu yàlla loolu suñu borom subhaanahu wa taala di yëg la wa ihsaanun ak rafetal rafetal ci diggante jullit ñi fekk lu naroon a yàqu nga fexe ba mu rafet fekk diggante bu ñagas nga fexe ba mu ratax fekk foo xam ni diggante bu déggantewul la nga fexe dem ci moroomam wax ni ko ah, yow de diw de li muy wax ceew lu baax jàppoon naa ni li ñuy wax sax bokkut lii muy wax yées li muy seeda ceew ci lu rafet delloo si xelam dem ca kenn ko moom day gis naa ni det diw moom jàppalu la dara ndax lu rafet rek lay wax yow ak lu baax nga fexe ba seen xel jàkkaarloo jàmm yàlla googu kenn xamul lu mu toll waaye fekk fu diggante bu baax nekk jàmm am fa mbooloo mu dajaloo di liggéeyal yàlla nga fexe ba dox seen diggante taal fa aw sawara woo xam ni kenn xamul fu ñu koy fayee yàlla ñu yàlla musal ci loolu loolu nag ay siti iblis rek ñoo koy def te bëri nañ ci àdduna bi léegi da jata yooyu jataay boo dem da nga fa fekk lu tolloog ñaar fukki junniy siti iblis ñu mel ni ni waa jataay ba mel bokk ca mbooloo ma yor kàddu ya di wax te kenn ku ci nekk sa yéene ak sa bëgg-bëgg li ci sa xol mooy fekk ba jataay bi tas ba mbooloo mi jaxasoo ba seytaane dugg ci seen biir nga dem xool sa beneen mission looloo ci jamono ji yàlla na yàlla musal ci jëmm yooyu te ñooñu nag suñu borom nee na maa ngi leen di xaare bu ëllëgee dugal leen sawaral jahannama joo xam ni duñ fa lu benn yoon su seen der yàpp yi jeexee ak seen kii ñu lakk leen ba def dóom dinaa leen ëlbatikiwaat defaraatal leen seen jëmm yooyu delloo leen ci seen temps yenu tolloon ci ay at tàmbalee ne waat lakk ban dolli seen ndaw yàlla ci yàlla musal kon wax lu baax ak dox diggante bu rafet ak fexe fu nga fexe ba mu baax loolu moom la yàlla bëgg yonent bi bëgg ko Sëriñ Tuubaa bëgg ko nan ci sax wala ikraam ak teral ñi yàlla teral nga teral leen te yàlla tax gis nañ ci yàqu-yàqu jamono dem nañ ba nga xam ni si nit dana yëg boppam ci wàllu am amu àdduna bay diir mbagg ñi nga xam ni si ñoom suñu borom da leen a jiital loolu sëñ musaa nga waxoon ne bu leen gotti gaayu yàlla yi ñi yàlla jiital jiital leen leen ngeen topp seen ginnaaw waaye bu leen leen won lenn daraja joo xam ne si am ngeen ko ci àdduna ba tax ngeen bëgg a jël seen bopp yëg yóbbu ko fu ngeen àggul wa xajju nee na ak néewu yàlla bi subhaanahu wa taala muy boo ko mënee nga dem wa shahadatu seere ni yow ab julit nga bu wér wa dakaatun génne asaka loolu nit ñi doyadal la rawatina Sénégal bàyyiwuñ ci xel bu baax a baax waaye bariwaana li olof di wax naan ñax gu we tooy wala gu wow day nakk gu tooy bari na ci barab yi da koy faral di gis ci marché yi yenn saa yi nga gis jekki-jekki barab sàngam ñu ni tàkk na ñii naan ndax ko du courant wala ay barab fekk boobu suñu borom lam fa am mooy àq jullit ñi nga am war koo génn génne woo ko sunu boroom taal alal ja kon nañuy génne asaka ci sunu alal bari na nag ay façon yu ñu koy génne loolu beneen waxtaan lay doon wala ibaadatu ak jaamu yàlla jaamu goo xam ni da koy saxal ci sa xol doon jullit bu wér di ko jëfandikoo wa jihaadun fi sabilillahi nee na di jihaad ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla bu nu jàpp ni jihaad jeex na jihaad ya yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ña àndoon ak moom mu ni al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama diina loolu jihaad la woon bu doon ànd ak moom ña demoon xëy xaswatu Tabuk dem Xaybar dem Yamaama mooy xare yooyu nga xam ni xare yu tàng la yu te metti yonent bi ànd ak ñoom ñu jaay seen bakkan yàlla dem ba sérteeku ci ñoom wax ni waraa wala taxsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaan inda rabbihim yurzaquun yàlla sunu borom subhaanahu wa moo wax yonent bi ni ko ñi nga xam ni danoo ànd ak yow jihaad joxe seeni bakkan ak seen alal man yàlla bu ëllëgee dinaa leen bégale aljanna ndax bés bu ñu leen dugalee ci kuusu bàmmeel rek man yàlla dinaa leen xippeel aljanna yow dinaa la ko terale yow sayyiduna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu la yàlla digle muy kon jihaat ci yàlla ndax di jihaat boobu rek déedéet jihaat ci yàlla bokk na ca jataay yi nga xam ni mooy am muy jataayu diine wala barab boo xam ni xam nga ni man boo fa fexee nit ñi dajaloo fa di fa jaamu yàlla di fa tudd suñ borom nga def ci sa pas-pas ba barab boobu taxaw am loolu jihaad la nga fekk ay julit ñoo xam ne seen diggante am na ay jafe-jafe nga fexe ba diggante ba tax loolu jihaad la diggante yoo xam ni dafa am ay gàllankoor nga dox ca ba jàmm am loolu jihaad la ku am jafe-jafe ci àdduna nga taxaw ko dindi di indiwaat ko ba mbiram yépp jag loolu bokk na ci jihaad yi nga xam ni jihaad yu mag la kon jihaad ci jullit du doy du fi weesu ba léegi mën nañ cee nekk di ko def kon faaw ñu xam ni jihaad du jeex ci yoonu yàlla wa ixlaasun lillaahi ak rafetal jëm ci suñu borom subhaanahu wa rafetal jëm ci suñu borom nag bari na lépp loo xam ni boo ko defee muy lu baax def ko te yàlla tax te bañ cee indi ngistal defal te yàlla tax boo dee dimbali nit ki bul bëgg mu feeñ bul bëgg mu fes nit ñi nag bari nañ ci yoo xam si koo ci wéetal laaj ko ñaari junni day lànk boo wéet boo duggee ci biir mbooloo yëkkati sa kàddu laaj ko fukki junni mu jox la un million yooyee ay ngistal la am na ñoo xam ni buñ la joxee joxaat la suba joxaat la ginnaaw suba dégguñu ñu wax ko fenn ñu ne sa ab noonu ngay doo nit ku baax kon mooy ñi nga xam ne si ar riyaa rek la def yàlla nag nee na bu ëllëgee ñoo ñu seen jëf yooyu dama koy dëbb ba mu def pëndëx ma wiccax ko ci seen xaar kanam yi moo nga xamee si jullit ñi dañ koy jëf Euh, yéeféer yi muy ci lu baax noonu lañ koy def haba am mansuran kon yàlla na yàlla musal ci yooyee jëf kon taxaw mu ne alqiyaadu wal ibaada mushafun wa sayful imaani wal ilmu wal amalu xilmun wa waqaarun jannatun wa naarun taatun wa ixtiraamun jamaatun wa nidaam jug am pas jaamu yàlla rawatina comme weer wi ñu nekk nii nga ni man de dafa yéene naa fóot sama bopp ba weer wii ñu dugg bu ma ci duggee danaa takk sama laxasaay jaamu ci yàlla bu baax a baax xataa mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa wax na ni euh, kenn ci mag yooyu sëñ Modou Lamine Gaye wax na ni mas naa waaj di dem ci sëriñ Tuubaa waaj yóbbu addiyaam ñëw ci benn barab ba nga xam ne xaajal na dox bi mu teg li mu yoroon fekk boobu mi ngi dërëmu ngurtu mu teg ko ci barab bi waajal fa julli defaru ba noppi waaj di jug di dem ndekete fàtte na fa dërëm ba ba mu demee bay jub sëriñ bi muy dëkk bi mu daal di yëglu boppam xool fan la àdd yi ji nekk ci moom mu xalaat ne ah fàttewaat na ko mu wàññeeku bi mu wàññi ko ñëw fi nga xam ni fi la ko bàyyi woon mu ñëw fekk fi ñaari dërëm mu ne man de xaw ma ban laa ci moom kon naa faf bàyyi ñëpp ndax su ma jëlee bii xaw ma ba xam moom la su ma jëlee bii xaw ma ba xam du moom kon naa fi faf bàyyi ñaar yëpp te jàpp ci yàlla dem ci Serigne Touba Serigne Touba nag day koo xam ne suñu borom da koo xamal lépp bala ngaa ñëw ci moom sunu borom subhanahu wa taala dana ko xamal lii la tax a jóg ak sa aajo ak lu koy faj yàlla moo ko defal loolu subhanahu wa taala nangu liggéeyam boobu moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasulullah wax nañ ni ba mu ñëwee ba nuyoog Serigne Touba Serigne bi def ko ah yoon wi da xanaa xaw naa yéex. mu ne ko waaw Mbàkke ndax ñi maa ñëw ba jub la waññeeku waat mu ne ko ana lu ko waral mu ne ko Mbàkke day bi may waaj di ñëw damaa dajale sama addiya mu toll ci benn dërëm nguur bi ma ñëwee ba ci yoon wi waxtu dat ma ma koy waajal bi ma ko waajalee ba noppi ndekete fa ma ko teg fàtte naa ko fa bi ma ñëwee ba jub dëkk bi di yëglu sama bopp di xool ba xam li ma yoroon fu mu féete ci man ngir ma waajal bu ma la jàkkaarloo yow man la ko jox addiya ma làmb dajuma ko ma xam ne dama koo bàyyi ginnaaw fa ma nekkoon laa ko fàtte bi wàññi nag ba ñëw foofu dama fekk benn dërëm boobu ma fa tegoon fekk beneen dërëm ci wetam muy ñaari ngurtu taman benn laa fa bàyyi woon léegi nag mënumaa jël boobu ndax su ma ko jëlee xaw ma ba xam moom la wala du moom su ma ko jëlee beneen bi it kasaalika ne ko noon xaw ma ba xam du moom loolu nag àq jooju laay bañ ma daal di ëlbatiku ñëw moo tax mbàkke yoon wi wax Sëriñ Tuubaa ko ak saa moom la seytaane saytaane bunt boobu la dese woon ci yow fatt na ko kon gis nga mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa gëm gi nu amoon ak dellugu ci yàlla gi nu dellu woon nga xam ni lu nu wéet wéet wéet wéet danañ xam ni danañ segg seeni i mbir ba duñ ko xam waaye gis ngeen jamono ji ñu toll léegi dem nañ ba nga xam ne si kenn gëmatul yàlla ci li ngay def am na ñoo xam ne léegi nu ne la neex wute alal nu nekk lañ koy amee am na ñoo xam ne si buñ la waxee seen i am-am buñ la joxoon loxo sax doo doo leen fay te dara waralu ko dul àdduna leen koy bàyyi. te it bis dina ñëw boo xamee ne si kenn ku ci nekk da nga wéet ak sa borom ba defee ne yow dong la sàkk Cheikh Abdoul Ahad wax na ko alxuraan moo ko nettali wax ne wa kulluhum wa aati yawmal qiyaamati fardan kenn ku nekk da nga wéet ak yàlla ba defee ni yow dong la sàkk kon nan rafetal am am yi rafetal wutin yi te bu nu amee ba noppi nan ko delloo ci yàlla delloo ci yàlla ji mooy nitu yàlla yaa ngi fi jàkka yi ni jaamoo suñu borom mi ngi fi daaray alxuraan yaa ngi fi nit ñi nga xam ne si danoo aaja ndimbal ñi ngi fi yàlla tax dañ leen fiy teggi dem te ña am bu fekkee ñi am ñoom ña am rek la ñuy waxal kon ñu ñàkk ñu fu ñu jëm bu fekkee ni yow boo amee sab xarit mu dem ba nga xam ne suñu borom mane na ko gan ka amatul mënatoo wax ak moom amoo numéro téléphone doo dem këram doo jaxasoog moom yaa ngi jaxasoog borom alal yi ndax ñi am alal dañuy defe ne buñ jaxasoog ku ñàkk da leen di xañ wala mu jël lañu yor kon léegi dañuy ëlbatiku di gën a xamanteeg borom alal yi kon loolu moo indi jafe-jafe ci àdduna bi ba nga xam ni kenn ku nekk fi ñu toll ni wóorut sa morom ñàkk wóolante gi nag mi ngi tàmbalee ci tey bu fekkoon ni tàbbi nga ci jàkka indi fa ay dàll yu bees boo bu fekkee ni dàll yi la féetewu la xar kanam sa kanam wala nga koy bàyyi xel boo moytuwul boo génnee doo sol sax ay dàll wala dàll yu bon ngay jël kay jël dàll yooyu ab jullit na li yow soloon ay dàllam yu ràpp ñëw ca jàkka ja soppi dàll ya ndax looloo ko taxoon a jóg kon fa yi defaroo ku fa yàqoo fan ngay defaroo islaam nag loolu la tëral subhaanahu wa taala wax ni wattaqullaha ya ayyuhal muslimuuna wa tuubu ilallahi qabla an tamutu nee na na ngeen ragal yàlla yéen jullit ñi wa tuubu ilallahi na ngeen tuub jëm ci yàlla xabla anta tamutu la jëkk ngeen di faatu fa man taaba taaba allahu alayhi ne yàlla nee na képp ku tuub jëblu ci man man suñu borom dinaa nangu sa tuub tuub nag dafa am nu koy defee nit su tooñee dafa war a jégglu nan ngay jéggloo toroxlu wàcce sa bopp xam ne ab jaam nga ndax bu fekkee nit sax danga koo tooñ ah tey jii boo dee ak sa moroom pes ko menn mbes mun la waaye sa waay lii nag nga ne ko baal ma teyuma ko dalay baal boo wëlbati ko waatee ko meneen bet bu amee fula du fa nekk sax naan la lii lan la day fayu rek xam ne yaa ko tey fot fataat moom tayeef la waaye tuub suñu borom dafa wax ni ab jullit bu ko defee du ca delluwaat ci addunaam di bàyyi xelam ca la mu defoon mu koy fàttaliku mu koy naqari muy fas yéene loolu du ci mas a delluwaat bu mukk loolu mooy ab tuub waaye boo tuubee tey bu subaa nga defaat toj-toj wala nga duggaat ci loo war a dugg li ñuy jaawale nag ci àdduna dafa am yu doy waar yoo xam ne si mi ngi tàmb ci suñu biir sëriñ Tuubaa kenn du ko booleek dara sëriñ bi àndul ak lenn caaxaan lépp loo xam ni yaa ngi koy jël mu nekk ci àdduna nga bëgg koo booleeg sëriñ bi yaa ngi nax sa bopp. gis ngeen ñi fi xew ci àdduna dangay gis ku tëgg ay caaxaan mu jëm ci wàllu làmb wala fubbal wala lel ne loo xam ne si dafa jëm ci wàllu àdduna te dara yàlla nekku ca mu cay tudd Serigne Touba di ko ci woo woo goo xam ni dafa yéeme di ngir jaay marchandise ak alalam ak yokk aw turam Serigne Touba nag caaxaanul tey caaxaanul ëllëg diglewu ko fenn te fépp foo xamee ne si ak nit a nga di mbubboo ci turam àndak ak nag loo xamee ne si day merum sëriñ bi diglewu ko tey diglu ko ëllëg jaamu yàlla la digle nekk ci ak njub di sellal ay jëf di dimbali nit ñi te yàlla tax sax ci alxuraan ak jàng xasida sëriñ Tuubaa waaye woote ay caaxaan tuddoo ci sëriñ tubaa di ci yëkkatikoo turam ngir làqatu ci ginnaawam yooyu yëpp sëriñ bi xam na ko moo tax sëñ Moussa Ka waxoon ni ne fi man ak ne ci man bokk na ay pay yéen murit yii fi zaman ku ne ci man ma ne ci moom te yor ko àdduna ak alaaxira far defar ko ràmm ko sàmm ko ba xëy jofal ko jox ko njool makka mu xëy dëkkoo ko ku ne ci man ngir koom yi ak saayir si ma jox la yooyu sama baatin del si nanu góorlu moytu caaxaan yi nanu delloo sunu yàlla ci sunu xel nee na nag bu ngeen tuubul te tuub boo ko defee waroo co delluwaat soo juumee nit ku nekk day juum waaye boo juumee fas yéene bu ca dellu waaye tey bu nu tëggee bu xasida yi yëkkati ko léegi nga fatasu su sabar gi tëggee léegi nga tàccu mënul nekk da nga ciy mën a jàpp benn bi ci des nga bàyyi ko sëñ Tuubaa nee na wallaytu ani lahwi wa laghwi mudbiran lillahi bil qur'ani nihmal munzilu bu ak caaxaan nee na waxuma ci dara képp ku ci nekk danga may mbubboo rek wala ngay tuddoo sama tur waaye bokk ci yow sëriñ bi nag nee na bu ëllëgee ki ma gisul na xam ne ci moom la waaye du ci man man sëriñ Tuubaa moo tax bu wax ni wa gafarallaahu lahu wa ahsana ilayhi wa ma awsaa rahmatullahi liman aqbala ala llahi fi talabihi sunu borom subhanahu wa taala nee na xéewalu yàlla ak daytan la moom sunu borom subhanahu wa taala mi ngi jëm ci ki nga xamee ne si moom jënmal na sunu borom di ko jéggulu ab jaamkat bu jégguloo ki war a jéggulu yàlla jéggal ko ndax njuumte du wees te nit su juumee war naa delloo si xelam tuub suñu borom subhaanahu wa taala te yàlla nee ne ku ko def dama lay jéggal faarafu allaha fi raqaa'i yaarifukum fi shadda xam leen yàlla ci jamono yi ji nga xam ni xéewal mi ngi ci seen loxo ak kàttan ak doole yàlla fàttaliku leen su ngeen demee ba ñàkk ñaar yooyu fi mu toll nii àdduna ku mën danga nga mën a da nga toog bis dootoo mën soo amee alal danga dem ba benn bis dikk nga faatu foofee dootoo mënati dara dañ lay sàng dañ lay sàng ña lay jullee dañ lay dugal ci am pax loo bari bari alal amul benn borom alal boo ma sa dégg ni faatu na moo sang boppam moo suul boppam amul te armeel boo fa rombee da gis ku la ëpple fopp te mënatul mu tëdd ma nga fa mu tëdd mënatul boppam dara kon jamono joo xamee ni si am nga kàttan ci sa wàllu doole jaamu ci yàlla danga dem ba nga xam si sa kàttan mënatu ko wala sa doole demul sëñ Tuubaa nag nee na man baadara waxta sixari ilal huda istaraaxa waxtal kibar sëñ bi nee na ku ma jox sag ndaw ma téel la sag mag waaye nag bu fekkee ni nag joxoo ko sag ndaw dangaa jël sag ndaw jox ko àdduna dem ba dara mënatul nga jaaxle xamante nooy def comme Sénégal la xew koñ boo tourné ñaar fukki jàkkaa nga fa jàkka ju nekk am kuy nodd boo ko dee xool xam ne ay ancien bandi la ñuy doon loolu bari na ci àdduna kon nanu delloo suñ xel te xam ni yàlla kenn mënu ko nax Sëriñ Tuubaa nag nee na képp koo xam ne jël nga sag ndaw jox ko jox ma ko bu ëllëgee sag mag suñ borom subhaanahu wa taala dana la ko teel euh, mu daal di dikk waxaat ni ba tey kon war warji'u ila diinikum tuflixu wa tansaru ngeen dellu ci seen diine mooy diine bi ngeen gëm gis ngeen nit ki war naa am ngëm-ngëm bu toll ni wàllu diineem kenn du ko ci mën a tegal lenn loo xam ne si yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko wala islaam wala diine jëmalewu ko foofu waaye jàdd jàdd yeeg nekk ci benn côté wala wàcc wala dem am complex complexe li ngay def loolu nitu diine di ko def islaam diglewu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy tere kon nit ku nekk war ngaa ci li ngay def ndegam ñooñu ngay jël seen euh, xam-xam wala seen diine ñoo franc la nu nekk am ci fulla te yow nga am njiit doyloo doo sa njiit dem ànd ak ñoom kon yow ñàkk fayda dogal na la ak ñàkk fulla bu baax a baax kon nanu am pas-pas suñu am mu ne wa aqra'u kitaaba rabbikum yakun lakum duhran wa nuuran wa diyaa nee na na ngeen jàng téere yàlla bi dégg nga sëñ jàng leen téere yàlla bi mooy alquranul karim ndax su ngeen ko jàngee dana nekk seen loo xam ne si bu ëllëgee dana leen bénéfice bu ëllëgee ak wéttal ci seen xabru mooy seen bàmmaat wa nuuran ba tey ak yaatal goo xam si day nekk ak yéen foofee di leen xaaral ëllëg wa tabtaxu nuur alladi jaakum bihi muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngeen di sàkku leer yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko li digle muy ci xadis ak wax yu tedd yi nga xam ne doon na ko wax mooy xadisul qudsi wala tansu nasibakum min addunya wa in kaanat faaniya nee na it bu leen fàtte cër bi leen yàlla jox ci adduna donte àdduna day jeex xoolal àdduna xam ngeen ni barab buy jeex la waaye nag alquran daf ne la wabtaxu ma ataaka allahu daal al axira wala tan sa nasibaka min al dunya yàlla lim la digal ci adduna te nga war koo def te nga am ko ci muy ab cër nee na ko bàyyi xel waaye nag bàyyil xel bu ëllëgee xam ni yàgg-yàgg da nga fi jóge nit du dund rek di dem bis day dikk mu faatu noox moo fi ëppooni ak dem na ak yeneen yoonu ci fi jaaroon kenn ku ci nekk tey jii dañuy nettali say dem nga ki nga xam ne sii tamit dafi nekk ci àdduna muy sayyiduna Muhammad rasulullahi dundam tey fi ñu toll ni ñun ñëpp ñoo ngi roy sunna waaye li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund amul kenn kuy wéet di ko ñaan wala bayru bariwul ngir dund ko ci àdduna ko sañoon dund ñaar téeméer at wala téeméer dem kaw fi ñu toll nii koo ñaanal ni ko yàlla nga faatu mun la yàlla tere te ñëpp ay faatu nag kenn du fi des kon ginnaaw nag loolu sunu borom dafa ànd ak ñun nee na kon nan koy bàyyi xel ci suñuy jëf ak suñuy wax di wéttalikoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mën a nekk euh, wa abtagu ma ataakum laahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya cër bi la yàlla sédd ci àdduna nga bàyyi ci xel bu baax a baax xam ni war ngaa nekk nit ndax an-nadaafatu min al iman ci tegu moom mooy inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla dafa rafet bëgg rafet nit du toroxal boppam waaye nekk ci àdduna naan damay sufiyanke sufiyanke bañ ay yére yu baax ah doo sangu euh, doo defar sa bopp mel ni ak njuuma déedéet islaam dafa set ñaare koo gis mu koy def ñàkk moyen la ak dem ba nga xamee ne si daw responsabilité ci boppam am na ñoo xam sax ci wàllu njaboot da ngay jekk jékki gis leen ñu naan dañuy dugg ci benn mouvement déedéet daw responsabilité la waaw qu anfusakum wa ahlikum naaran nanu delloo si suñuy xel te xam ni ay digle yu wér yoo xam ne si islam koo digle ku ci nekk yaa ngi ci yoon wi waaye ku ci nekkul wàcc nga yoon wi ku dem na ba sa bopp ne yow wàcc ko yoon wi ëlbatikul waat te bul ko wàcc te bul ci am benn complexe diine amul complexe mu ni wahiya lahwun wa laibun wa ahsinu kama ahsanallahu ilaykum mu ni ci àdduna am na ay caaxaan am ay po am ay jaxasoo am dugg ak génn am ay yàqule am nit ku doon bëgg a dem bay àgg ñu korka wax nañ ni ñeen fukki góor yàlla buñ jugoon di dem ñaaree àgg ñenn ñi alal moo leen di baalankoor ñenn ñi jigéen ñenn ñi ay jëw yu nu def ak ay gàll ak ay lekk yu nu lekk riba yàlla na yàlla musal ci loolu te dana toll ci jamono joo xam ni si tey ji mucc dafa jafe mu ni wa tabtaxul fasaada fil ardi wa aqimu salaat mu ni wala tabtaxul fasaad bu leen bokk ñi nga xam ne si dañuy nekk ci àdduna di faat ay bakkan rey nit nag kon ni ma koy waxee ci àdduna du caagee ni koo jël pistolet jam ko wala nga jël jaasi gor ko mu faatu wala nga jam ko paaka bari na ñuy dox ci àdduna fi ñu toll nii lin liñ rey ci nit kenn xamul luñ toll waaye yowmal xiyaam rek lay leer ana loolu mooy lan nit ku nekk ci famille doon soutien famille ba doon jàmbaar lool nga xëy suba rek teg ko bët mu te defu la dara nga fexe ba déstabiliser pouvoir am yàq ko benn ba mu dof wëlbati am xelam wala ba la mënoon mënatu ko wala barab ba mu nekkoon nekkatu fa du fi jeex ci àdduna rawatina Sénégal kon nañu xam ne rey nit am na ñu ko def di dox waaye bis bu nu àggee ci suñu kanam suñu borom dana leer kon yàlla yàlla musal ci def lu bon ak xolub iñaan wala ab jalousie boo xam si dafa am ci diggante nit ak doomu aadama yàlla bind te yemalewul nii loxoy nit ñi tolloo noonu la mel te kenn ku ci nekk la suñu borom bind ci sa wërsëg da nga ko jot ku xeeb sa wala nga soxor te su boobaa lam lay dugal moom mooy nga def naka sudul noonu te loolu lam lay julal bu ëllëgee dëkk sawara rek te yàlla na ci yàlla musal mu ni wa aqimu salaata wa atu zakata wa arka'u maaka maa raakiin nee na na ngeen taxawal julli te na ngeen di génne asaka te it ngeen di julli di ànd ak way julli yi ca mbooloo ma jàkka nekk sa kot pas 20 mètres wala 10 nga dugg ci jàkka ji islaam mayu la sharia ngay jullee ci sa kër kon da ngaa war a dox dem ca jàkka ja bokk ca mbooloo ma ànd ak ñoom wa jaahidu fillaahi xaq jihaadihi nee na na ngeen jihaad ci yàlla dëgg-dëgg jihaad te yàlla rek tax fa innahu yandurukum jihaadul akbar sunu borom subhanahu wa taala dina leen gis ci jihaad yooyu bu ëllëgee mu tanal leen ci defal leen aw mujj lii ñuy dënmal di ci nekk jaamu yàlla la yoo xamee ne si tey jii suñu fàttalikoo Badar ñaandoon ak Seydina Muhammadu Rasulullahi loolu xam naa ne beneen émission la waaye ñu leeral ci rek ni ñoom jaayante bi ñu jaayante woon nga xam ni fukki fan ak juróom ci weeru koor ñuy xeex ba dara xeex bu metti muy liggéey bu rëy boo xam ne si jullit ñi dañ ko def am ca ndam loolu nañ ko bàyyi xel bu baax fàttaliku te ay jullit ñoo ko defoon tey ji islaam bu doon garab dañuy wax ne seen deret moo ko suuxat kon yàlla na yàlla fayal leen tey suñu borom taasu seen barke sëñ Tuubaa nag mag ñi ni leen roy leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine waaye ñun it ñun ñu àndoon ak sëñ Touba ñooy suñuy maam ci diine ak suñuy baay kon ñooñu leen war rey ñoo ñooñu dañoo jaayante woon ak sëñ Touba bëgg nu woon dara kon yàlla suñu borom defal nu dégg ak topp nangul nu bu baax a baax suñu jaamu yàlla liñ fi wax euh, dañ ko wax rek ci pas-pas ak bëgg ñu ngi ciy jéggulu ñëpp bu fekkee ne am na kon ci laal xam ne jubluwuñ ko ci woon waaye li yàlla bind rek ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle moom lan wax yàlla suñu borom defal ñu dégg ak tëb allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu du kanafin wa waaqi wa nahnu fi kanafihi almanii min kulli sharan wa adan sharii mustamsikina bi xiyaasi ahmada xayra al anaami muntahan wa mubtada man xaalaha fi zamani alwabaai amanahu allahu min albalaa'i barke Cheikh Massamba barke Cheikh Massamba